ginnaaw bi Cheikh Yérim Seck génnee euh, daal di euh, attaqué ki ngay di euh, maam Makhtar Gueye ak ñii di waa Jamra kii di Mame Makhtar Gueye nag tàyyiwul benn yoon ndax dafa def ab live di fàttali lu bari kii di Cheikh Yérim Seck dem na sax ba ne ko Cheikh bàyyil lii di tooñ ak di njort loo xamante ne bii dara leerul ci nga génn di ko wax ndax sama digganteeg kii di Ahmed Cissé wax na na lu toll ci quarante quelques minutes. Euh, kii di euh, Ahmed Cissé moom li nga xam ne bii moom lañ ko doon a sant daal defu ko moo tax na ñu daal di koy yóbbu ci yoon moom daal kii di Mame Makhtar Gueye lenn lu ne yàq ko kii di Cheikh Yérim Seck teg na daal daanaka kii di Cheikh Yérim Seck ci ab àndam ndax Cheikh Yérim Seck daal moom dafa génn di dem bay wax naan Mame Makhtar Gueye yow boo amee looy wax na nga ko dem wax sa doom ci jigéen joojale kii di Mame Makhtar Gueye daal bi mu génnee ni mu waxee daal boo bokkut nag Mame Makhtar Gueye mi nga xam ne bi moom lañ doon gis.